campagne bi euh, ku nekk yaa ngi wax sa programme tey jii ñu bëgg a taxaw tuuti mm-hmm. ci ay propositions yu tukkee ci ay candidats mm-hmm. euh, ngir euh, réforme de la justice boobu ba léegi ñu ngi koy wax muy coppite wala ay jooyante yu ñu war a indi mm-hmm. ci wàllum yoon ci yan proposition El Hadj Daouda nga bëgg a taxaw tey surtout. waaw tey boo xoolee candidat yëpp boo xoolee seen programme. Mm. réforme de la justice boobu dafa nekk au cœur de leur programme pratiquement ñoom ñëpp ñëpp mm. ñëpp ñëpp boo xoolee seen programme te li ñu gën a mettre en avant mooy indépendance de la justice ñoom ñëpp koo ci xool programme di nga gis ñu ne dañu bëgg indépendance de la justice ñu ci bëri nag def nañ ci un certain nombre de propositions proposition bi ñu njëkk def pratiquement ñoom ñëpp ñu bokkale ko moo di il faut que ñu réformer le conseil supérieur de la magistrature boo xoolee conseil supérieur de la magistrature moom mooy organe bi nga xamante ne moom mooy saytu carrière u magistrat yi moom mooy proposer à ce que ñu leen di affecté euh, ci post bi wala ci poste bële te foofu nag boo xoolee actuellement ni li nga xam moo nekk suñ texte yi mooy président de la république du Sénégal moom moo nekk ki nga xamante moom mooy président du conseil supérieur de la magistrature et que vice président bi dafa nekk euh, ministre de la justice ñoom nag lañ ne loolu tant que dindiwuñ ko indépendance bi nga xamante ne dañ koy wax Ah, bu boobaa du mën a du mën a nekk lu nga xamante ne dafa am ñu ci bëri nag def nañ ci ay proposition ñu ne dañuy réformer conseil supérieur de la magistrature génn ci le président de la république du Sénégal bi nga xamante moom mooy le président de l'exécutif en même temps bëgg a nekk le président de du pouvoir judiciaire ça pose un certain nombre de problème beneen proposition bi nga xamante ne ñoom ñu bëri également def nañ ko mooy dañu bëgg a réduire yi nga xamante ne le procureur de la république da koo am parce que boo xoolee ci benn proposition bu ñu def mooy cordon ombilical bi nga xam ne yàgg nañ koo wax. entre le procureur ak le pouvoir exécutif nga xamante ne. le ministre de la justice mën na joxe directement des instructions au procureur de la république et que procureur ci boppam dafay am obligation jëfe ko boo xoolee code de procédure pénale daf ci am am na article bu nga xamante ne dañ ne su fekkee ni le procureur dafa recevoir des instructions écrites émanant du du ministre la justice il a de requérir dans le sens voulu par le le, le ministre de la justice foofu ngay dégg sax ñu naan wax naan la plume est serve et la parole est libre il suffit tout simplement que ministre de la justice bindoon ko dafa am obligation def loolu ñoom nee nañ nag loolu il va falloir que ñu dindi ko pour que le procureur bi nga xamante ne dafa am ay pouvoir yoo xam ko de procédure pénale moom moo ko jox mu nekk l'avocat de la société am un pouvoir d'autosaisine mu mën a am indépendance bu nga xamante ne dina agir dina agir au nom du peuple sénégalais et pour le bien du peuple sénégalais loolu nekk na benn proposition bu nga xamante ne ñu bëri également def nañ ko mais beneen bu ñenn ñi def nee nañ entre le procureur ak euh, la prison il faut que ñu def fa benn juge li nga xamante moom moo am France actuellement nii mooy juge des libertés et de la détention moo di procureur mu bañati am sañ-sañ jël directement yóbbu ay nit ay prison tey ji boo xoolee ñun suñu système tey ji ñu bëri ñu nga xamante ñu nga prison ñu war leen a jugé au niveau du tribunal des flagrants délits du juge d' instruction moo leen fa yóbbu c'est le procureur moom moo leen di yóbbu juge et moom mooy le supérieur hiérarchique des officiers de police judiciaire muy euh, commandant de brigade ak commissaire de police yi mm-hmm. dès que ñu arrêté nit informé nañ procureur mu ne leen defere lañ bu ñu defere pare moom mu jël ci boppam daal di yóbbu kaso mm-hmm. ñoom nee loolu il va falloir ñu dindi ko ñu def benn juge des libertés nga xamante ne procureur bi day def rek day demande rek comme nu muy demander euh, juge d'instruction bi na ko damaa bëgg nga placer ma kii wala damaa nga jox ko liberté provisoire il reviendra nag au juge de la détention et de la liberté d'apprécier ndax nit ki nga xamante ne procureur nee nañ dañ koy yóbbu kaso dinañ ko yóbbu wala duñ ko yóbbu donc c'est une réforme bu nga xamante ne également ah euh, kii euh, nañ ko proposé nañ ko bëri na ci ay candidats yu nga xamante ne nee nañ également la conseil constitutionnel il faut ñu soppi ko daal di koy def cour constitutionnel mhm. am na ay propositions yu bari yu nga xamante ne candidats yi def nañ ko beneen bi également ñu ci bëri nee nañ mhm. ni ñuy yóbboo kaso nit dafa dafa na lay kaw sax détention systématique dafa bari mhm. ñoxor njaay ñu yóbbu nit kaso si des fois des choses yu nga xamante ne ça n'en vaut pas véritablement la peine ñu ci bëri nag dañ ne il faut que ñu appliquer les peines alternatives parce que boo xoolee tey tey jii suñuy code am na li ñuy woowe ay peine alternative mm. au lieu que nit nga koy yóbbu kaso nga defal defal ko defloo ko benn travail d' intérêt général bu nga xamante ne dina mën a jëriñ askan bi mm. en même temps faute bi nga xamante ne def na ko contre la société dina ko mën ci boppam mu fay ko te dem kaso du ko fekk mu indi ay surpopulation carcérale mu am lu nga xamante ne dafay jëriñ euh, askanam et en même temps faute bi nga xamante ne defoon na ko également mun koo expier xam nga sans pour autant mu dem kaso loolu yëpp c' est une possibilité bu nga xamante ne candidat yu bëri proposé nañ ko muy peine alternative ñu ci bëri également nee nañ il faut que ñu réduire les pouvoirs du président de la république parce que boo xoolee le président bi dafa am ay pouvoir yu bari yu nga xamante ne déjà ci constitution bi rek moom moo ko jox pouvoir yu yu yu bari yu nga xamante ne moom mooy nommé amul benn responsabilité bu nga xamante ne am na ko pratiquement pas une responsabilité pénale bu dul haute trahison haute trahison bu nga xamante ne c'est pas véritablement défini hmm. te Sénégal ba mu amee ba léegi amul benn président bu nga xamante ne daal déclenché nañ une procédure pour haute trahison voilà Sarkozy ca voilà ñoom nag nee nañ il va falloir que et le président de la République ñu mën a engagé sa responsabilité et que même en cours de mandat su fekkee ni def na lu nga xamante ne jàpp nañ ne dëppawul ak les intérêts du pays ñu mën a déclencher benn procédure de destitution ñu mun koo wàccee. ci ci ci nguur gi avant même ko muy jeexal <clears throat> muy jeexal mandaam am na ñeneen ñu nga xamante ne proposé nañ à que également les ministres boppam ñu am une responsabilité pénale parce que da gis chaque fois bu nga xamante ne am na ay rapport de corps control ñu ni am na détournement bu nga xam ne dafa am dans tel ministère mosoo gis ñu jàpp benn ministre parce que amuñu responsabilité pénale ce sont les DAGE ñoom ñoo nekk ñu nga xamante ñoom ñoo am responsabilité pénale am na ñenn ñu nga xam dañu propose à ce que les ministres ñi nga xamante ñooy les ordonnateurs de dépense hmm. ñoom seen bopp ñu mën a am une responsabilité pénale ba nga xamante ne bu ñu demee ba gis ne am yaa une faute de gestion au niveau de leur ministère que ñoom également ñu nekk les premiers ñu ñu mën a ñu ñu mën a duut baaram ñu nga xamante ne loolu sax mën leen war a yóbbu kaso donc grosso modo mooy proposition yu bari yu nga xamante ne mhm. yooyu def nañ ko am na ñeen yu nga xamante également nee nañ il faut que ñu réformer le code pénal ak le code de procédure pénale waaw proposition bu nga xamante ne je trouve très très très très très très pertinent même si réforme mujj bi yàggul hmm. wala wala waaw parce que am na reforme yu bëri yu nga def yu ñu hmm. def mais tey réforme bi nga xamante ne pour man mooy réforme bu nga xamante ne war nañ ko def le plus rapidement possible hmm. mooy l'article 139 du code il faut que ñu soppi ko tey jii dangay gis. moom lu mu wax. article 139 moom moo di juge d'instruction bi nga xamante ne normalement c'est une autorité indépendante c'est un magistrat indépendant procureur dafay am possibilité tënk ko. Mm-hmm. parce que article def daf loo lorsque le procureur vise les articles 56 à 100 s'il requiert le mandat de dépôt le juge d'instruction est tenu de placer ce mandat de donc boobu. yow kii da nga ko jox benn indépendance ba pare. Hmm. ngay dem ci beneen article xam nga jox beneen procureur bi la possibilité mu tënk ko. Hmm. loolu bokkul ci li nga xamante ne. moom mooy favoriser euh, li ñuy woowee indépendance de la justice surtout que. à l'état actuel de notre procédure le procureur de la république mën na joxe jot ay instructions directement du ministre de la justice hmm. à partir du moment où mu mën a jot des instructions du ministre de la justice mën na juge bi jël décision. ju juridiction bi jël décision ñëw na kii kat jàpp naa ne war nañ koo libérer mais ses supérieurs lui disent que kii warul génn. Mm. et s'il oppose s'il s'oppose automatiquement nit ki dafay dafay dafay kii kat gis nañ ko ci arrestation yu bëri yi nga gis ni amoon na jamono bi passé mm-hmm. loolu moom moo amoon gis nañ ñu bëri ñu nga xamante ne juridiction bi demoon na ba jox leen liberté provisoire mm-hmm. il a fallu que daal opposé wu. ñu resté en prison je donne l' exemple de. Aliou Sall Aliou ah. nga xamante mhm. ñetti yoon wala ñeenti yoon. juge d'instruction bi bàyyi na ko ah. procureur bi opposé wu dafa resté en prison ah. donc article boobu nekk na ci yu nga xamante ne war nañ koo réformer le plus rapidement possible bi lan moo tax nga ne dañ ko war a euh, coppi euh, daar daar waaw parce que parce que dafa am ay yenn dañ lay wax article cinquante six à cent hmm. tey jii par exemple boo jëlee article cinquante foofu infraction yi ñu fa def moom la ñuy woowee sax ay infraction yu nga xamante ne bon pratiquement détenu nan laa koy waxee ñu ñuy woowee ay détenu politique lool lañ leen gàll seen kaw. il suffit tout simplement que nga bëgg a yóbbu nit. kaso am na yenn article yu nga xamante ne boo ko visé rek. nit ki amul benn échappatoire bu dul dafay dem kaso. muy les les articles cinquante six à cent. su fekkee ni procureur visé na ko bu requérir mandat de dépôt à la culi allen. ak quelques exceptions près juge bi da koy def nit ki dafay dem kaso loolu nag jàpp naa ne lu ñu war a réformer la am na kenn sax ku nga xamante ne dem na ba proposer bon que ñu supprimer le délit d'offense au chef de l'État loolu bokk na ci proposition liberticide la benn loi liberticide waaw offense au chef de l' état. da ngay wax ñu ne bon de façon le président. voilà waroo ko waxee waroo waxee moom d' une certaine manière. y' une infraction qui s' appelle au chef de l' état loolu mën nañ ko gàll sa kaw. te mën na yóbbu kaso. Mhm. am na ku nga xamante ne Déthié Fall pour pour pour moom si boppam nee nañu supprimer. Mhm. Euh, loolu nga xamante ne c' est une infraction bi nga xam mu nekk. suñu na ñu criminaliser corruption loolu aussi. waaw am na proposition yu bëri yu nga xamante ne ñenn ñi ne il faut que ñu réformer les corps de contrôle et que lépp lu nga xamante ne genre de deniers publics la il faut que ñu sanctionne ko durement ñenn ñi dañu proposer ñu criminaliser ko ñenn ñi dañu sanctionne des sanctions yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a ardu que yi nga xamante moom moo am tey euh, euh, Daouda par rapport ak indépendance de la justice xam nga euh, su ma déggee proposition yi day mel pas yëpp mais day mel ni que c'est euh, nan lañ koy waxee te ay propositions yoo xam une justice pour les Politique. politiques mm. pour les politiques mm. et le fonctionnement de la justice en général mm. lan lañ ci wax parce que est-ce que la justice nu muy doxee fii ci Sénégal parce que dafa bari su muy pàcc yi nga xamee ni justice dafay dugg yëpp dafa dafa dafa bari yooyu yëpp dafa mel ni euh, fële lañ ko bàyyi quoi mais on se focalise uniquement sur les problèmes que ce régime a eu avec les politiques <laughs> pour euh, vouloir euh, tout tout refaire te day mel ni ci ñoom rek la yem. waaw non comme naan na fi ngay waxee mais xam nga bu ñu nee tey <laughs> bu ne nee bu ñu nee tey danga ne da ngay def da ngay euh, réformer la justice déjà réforme réforme système bi ngay njëkk a def. parce que dama la wax dama dama am habitude di wax fii que ni le problème fondamental c'est moins les acteurs mais c'est plus le système parce que les acteurs moom mooy les magistrats c'est des gens qui sont très bien formés bu fekkee na nga xool seen cursus rek c'est des gens qui sont très bien formés pour que nga dugg école na laa koy wax sax. Euh, ENAM ba woon. ENAM ba woon. centre de formation judiciaire. il faut que déjà il faut nga am benn maîtrise nga demaat foofu ñu former xam nga minimum am nga bac plus 7 maintenant su fekkee ni le système comme ni nga ko waxee le système nous nous avons un système comme ni may am habitude di wax un système inquisitoire différent de du système accusatoire bu nga xam on se base su des indices pour yóbbu nit ki kaso. donc tey tey tey tu réformes le système tu réformes les textes ba nga xamante ne am na même bu fekkee ne da ngaa bëgg ne da nga da nga luub da nga da nga bëgg a luubal di nga am ay difficultés pour que nga luubal nga dem ba luubal y a des corps de contrôle yu nga xamante ne mën nañu identifier bu ñu la identifier mën nañu la sanctionner comme comme cela se doit donc c'est un ensemble à mon avis avant que ngay dem ci acteurs yi c'est le système ce sont les textes bi nga xamante ne y a énormément de choses yu nga xam mën nañu ko cee wax il faut que nga soppi leen il faut que nga soppi mécanisme bi nga xamante ne moom la ñu rendre la justice nga def ko ba nga xamante ne ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp mu dem nag après nga doog a dem ci acteurs yi nga xamante ne da leen di mettre dans les conditions de faire correctement leur travail et que ëllëg bu amee benn manquement bu nga xam am na par rapport ak lañ leen tegal bu boobaa di nga mun sanctionner comme cela se doit mhm. donc c'est un ensemble bu nga xamante ne boo ne bu ñuy réformer da ngay réformer de manière substantielle et non pas réformer pour régler peut-être un problème ponctuel loolu la ñu am habitude chaque fois à chaque fois qu'on parle de de réforme c'est pour régler un problème ponctuel mhm. ba ñuy naan dañuy na laay ko sax criminaliser le trafic de drogue. c'est ONG moom moo ko porté woon. Mm. voilà c'était c'était Jamra ñoom ñoo ko porte woon après ñu ñëw criminaliser ko mhm. bañ ne dañuy criminaliser le le viol le mhm. jigéen ñi ñoom ñoo jóg daal ne li il faut ñu ko ñu jàll di criminaliser ko mhm. ce sont là yu nga xamante ne pour man du noonu la war a demee dangay ñëw faire un diagnostic sans complaisance xool li nga xamante justement et justement même est-ce que euh, par rapport ak euh, campagne électorale présidentielle yi fi jot jaar ça a toujours été un thème boo xamee ni dafa présent ci programme candidat yi est-ce que après élection mm-hmm. ou, ou réélection gis na est liñ ko doon débattre wala gaz yi ñu ci doon joxe ci campagne bi moom lañu ñu <laughs> appliqué ci c'est une question très pertinente man jowaa fekk fekk na au moins ñaari ñaari élection présidentielle disons ñaari président fekk na euh, ñaari alternance fekk naa <laughs> ñaari alternance en tant que journaliste mm. fekk naa fi Ablaye Wade fekk naa fi Macky Macky Sall et ñoom ñëpp boo mu saan xool seen programme également indépendance de la justice nekkoon au cœur de leur programme. comme tout bon opposant comme tout bon opposant mm-hmm. Mm-hmm. Euh, réforme yi nga xamante ne li nga xamante ñu ngi koy dund amoon na du temps de Ablaye Wade xam nga amoon na du temps de Abdou Diouf te ñoom ñëpp ku ci nekk da nga woon boo ñëwee. da di nga soppi un certain nombre de mm-hmm. choses. mais la plupart boo ñëwee ba toog tu te rends compte a des leviers nga xamante ne mën nga ko actionner. xam nga pour en ta faveur. voilà en ta mm. faveur. Mm, pour barrer au moins l' opposition ba nga xamante ne du ñu mën a am yenn liberté yenn yi pour pour pour, pour euh, t' empêcher de tourner en rond voilà pour ainsi dire. donc juste pour dire que c' est un vœu pieux. ce sont des réformes yu nga xamante ne des réformes pertinentes yu nga xamante ne bu ko jëfee askan bi dina ci dina ci gis boppam. Mm. mais est ce que ce ne pas que des promesses de comme on a l'habitude de de de ça reste à voir c' est l' avenir qui nous qui nous toujours est-il ñoom ñu ci bëri wax dëgg fa yàlla boo xoolee seen programme ils ont fait des propositions pertinentes yu nga xamante ne jàpp naa ne bu ñu ko jëfee li ñuy wax ci justice bi laam-laamee bi ñuy wax indépendance bi nga xam ne bëgg nañ ko justice bi buñ ko jëfee mois je pense que dina nekk lu nga xamante ne dina jëriñ. mais est-ce que nañ mën nañ ci xam xel bu dal. Daouda bal ma Cheikh ci proposition yi Daouda est-ce que yow seetlu nga ci. cette euh, manie-là euh, bu ñuy am à chaque fois. Mm-hmm. Euh, maanaam di utiliser des affaires politiques. Mm-hmm. pour des batailles. judiciaire en fait boo seetee comme ni nga ko waxee alternance bi jotoon am. Euh, Wàdd ba mu ñëwee les gens ont activé des leviers. tëj ay mbay Diouf yu nga xam ni socialiste la woon euh, ñii aussi bu nu ñëwee bu fekkee dañu am ak yow problème ñu activité ay leviers. xalifa Sall jaar na fi Karim Wade jaar na fi. est-ce que euh, yow ci proposition yi nga liir. gis nga ci ni ñii kat. am nañu peut-être cette volonté de se départir de ça est-ce que est-ce que jot nga ko liir loolu. non non su fekkee ni ñoom lu ñuy wax lu ñuy wax li ñu bëgg appliquer nañ ko. Hmm. maanaam cordon ombilical bi nga xamante ne moom moo am entre le procureur. le ministre de la justice ak hmm. loolu su fekkee ne la nañ ko mu dañ. loolu ngay wax noonu mënatul am. cest que tey même su fekkee da nga am un rapport bu cour des comptes wala nga am un rapport. IGE IGE wala nga am un rapport OFNAC bu nga xam ne dafa ciblé un certain nombre de choses. Mm-hmm. du yow exécutif yow yaay ciblé ti toppal ma diw toppal ma diw toppal ma diw parce que sama opposant la. bàyyil telle personne parce que dafa ànd ak man. tu prends le rapport dans son entièreté xam nga nga jël nga jox ko procureur. et à partir moment la le procureur en tant qu'avocat de la société. du xoolati ndax li may def ni dina neex na exécutif bi wala lii neexul exécutif dafay xool en fonction des recommandations qui ont été faites par des agents assermentés xam nga renseigner ko mu am des éléments au moins des indices ñu basé wu sur loolu pour topp tey jii on a eu beaucoup yu nga xamante ne qui des gens des dans le régime actuel yu nga xam ne mhm. kenn mosu leen topp ci dara alors que d'autres personnes yu nga xam ne indexées par les leen parce que c'est des opposants ñu mun leen poursuivre comme comme comme mu dem le dernier le dernier exemple moom mooy affaire force Covid bi. fonds mm, Covid bi force Covid on a eu combien de dignitaires du régime actuel ñu nga xamante ne. ciblé nañ leen dut nañ leen baaram. gisoo sax benn enquête bu nga xamante ne demandé nañ ko à la section région wala à la DIC wala à la sûreté urbaine bu nga xamante ne am na. tu vois ah, par exemple la la l'OFNAC l'OFNAC ils ont envoyé beaucoup de rapport avant sëñ Bass Gueye. y a eu mm. beaucoup de nga xamante ne. Seynabou Ndiaye Diakhaté envoyé woon na ko qui avait ciblé un certain nombre de personnes ba tey ji gisoo ci lenn lu nga xamante ne mm. def nañ ko ci et surtout c'est des gens yu nga mm. xamante ne du régime actuel yu nga xamante ne leen dut baaraam mm. juste pour dire que juste pour dire que su fekkee ne cordon ombilical boobu dindi nañ ko loolu ñu bëgg noonu loolu ngay wax noonu mën na nekk mais su fekkee ne dindiwuñ ko également lawoon démb moom mooy doonaat suba parce que yow procureur di bëgg a def benn affaire sa ministre de la justice woo la ñëw ne ay eh boy tegal affaire bi ci suuf da ngay am obligation nga teg ko suuf. Mm. wala mu ne la dama bëgg nga poursuivre telle personne xam nga tu as l' obligation xam nga de de topp ko. je dis pas que ñooñu ñuy topp defuñu dara mais le fait que ñuy seppi par exemple xam nga jël ne ok kii kat def na. mais bokkul ak ñun nañ ko topp mais kii kat dafa ànd ak ñun def na mais buñ ko topp bu boobaa deux poids deux mesures lay am te bu boobaa nag dañu nekk rupture d'égalité des citoyens devant la loi est-ce que Daouda ñi nga xam ne ñoom ñooy campagne nekkuñu di wax pour wax rek boo xoolee ñaari alternance yi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a jàll mhm. mbirum justice nekkoon au cœur de leur campagne comme vous l'avez si bien dit mhm. ndax ñoom bu ñu ñëwee donc euh, am nga njortu rafet ne daañu joyantiwaat waaw non wax dëgg li may mën war rek mooy man de deux alternatives damay jël toujours la plus noble voilà entre entre dafa nekk ñu nga ñu nga xamante ne duñ ko jëfee wala dafay nekk ñu nga xamante ne dañuy jëfe je considère que dañuy jëfe jusqu'à preuve du contraire mhm. loolu laay loolu loolu laay jàpp surtout que dafa nekk ñu nga xamante ne jàpp naa ne waxaguñ ma lu dañ. voilà parce que c'est des candidats yu nga xamante ne kenn jëlagu ci nguur. Hmm. il faut que nga ñu yor nguur nga xool leen à l'œuvre nga doog leen juger. Hmm. mais je peux pas tey tey tey ma ne ah ñoom dañuy wax rek bu ñu toogee duñ ko def ay console j'en suis absolument pas sûr. Hmm. te bëgguma wax lu nga xamante ne dëppoowul ak li nga xamante ne moom moo nekk. maintenant ku ci toog. defuloo ñu ne ah yow yaa fi diggoon lii mais la nga fa diggoon defoo ko. tey tey tey ñi nga xamante ne toog nañ tey. ñu digge woon ay choses parce que le programme yoonu yokkute boo ko jëlee par exemple en 2012 il y avait des propositions en ce qui concerne les de la justice ba tey ji kenn jëfewu ko loolu mun naa toog man ma ne Macky Sall diggoon nañu lii mais defu ko xam nga parce que la mu diggoon ak la nga xamante ne moom moo nekk tey dëppoowul mais quant par exemple fenir ñëw ne par exemple Déthié Fall li mu diggee du ko def wala Diomaye li mu diggee du ko def ah, li muy dig Dia li mu diggee du ko def loolu je peux pas le parce ah. que je leur donne un un préjugé favorable jusqu'à preuve du contraire hmm. léegi daaw de pour terminer euh, quel devrait être peut-être taxawaayu les acteurs de la justice ci boppam ñu ko seex les acteurs de la justice gis nga quand tu discutes avec les acteurs de la justice. Mhm. la majeure partie des acteurs de la justice les magistrats surtout. Mhm. c' est des gens yu nga xamante ñoo la gën a bëgg ñu def ay réformes yu nga xamante ne day consacrer seen indépendance de la justice. Mhm. te même boo xoolee magistrature léegi boo xoolee pratiquement disons 60 pour cent yëpp ay jeunes lañ. xanaa ñu nga xamante ne pratiquement euh, c' est des gens les mêmes préoccupations que toi ak ak man. Hmm. ñu nga xamante ne dañoo bëgg participer tout simplement à au rayonnement de de leur pays. et le rayonnement de de de leur pays mënul jaar lu dul ci justice parce que gi nga un justice un état démocratique bu ñu koy wax rek justice pratiquement moom moo tax quand même quand on parle par exemple d'équité. Hmm. xam nga c'est la justice. il faut que ñëpp ñu mën leen a yemale. Mhm. ñëpp ñu nekk ñu nga xamante ne ils sont justiciables devant de de de de ils sont mhm. ñoom ñëpp ñu mën leen yemale d'une manière générale. mais nag su fekkee ne danga nekk magistrat bëgg appliquer la loi et boo ñëwee bëgg appliquer la loi moom ay freins yu nga xamante ne d'ordre institutionnel ay freins yu nga xamante ne si conseil supérieur de la magistrature la nekk wala da nga inféodé xam nga à ton supérieur hiérarchique le ministre de la justice à part de ce moment di nga bëgg. mais on te protège pas assez pour que nga mën def sa liggéey parce que même boo fippoo on a vu des cas hmm. de magistrats yu nga xamante ne sant nañ leen benn affaire ñu fippu mais conseil supérieur de la magistrature ba ca topp dañ leen di jël dagome leen daal di leen yóbbu fu nga xamante ne hmm. voilà jàpp nañ ne peut-être seen grade sut na foofu wala waroon mënoon nañ ko defee neneen donc juste pour dire que hmm. ce sont des gens yu nga xamante ne ñoom seen bopp ñoo la gën a bëgg réforme yi nekk ni et la majeure partie des réformes là yi nga xamante ne ñu ngi koy sant tey boo demee yaa li ma lay wax yaa ay 6 ans 7 lu mhm. l'union des magistrats du Sénégal dirigée à l'époque par euh, nu mu tuddati euh, waaji waay. Mhm. <laughs> fàtte na fàtte fàtte. ah Duba. non non ki ki ki ñu mujjee affecté woon Tamba. Téliko Téliko Souleymane Téliko Souleymane Téliko Souleymane Téliko il avait fait. ils avaient fait des rencontres fii Méridien lañ ko defoon ils avaient mhm. fait des propositions très pertinentes propositions yu ñu def noonu boo ko xoolee tey jii ci programme candidat yëpp yi nga xamante ne da nga koy gis ma nga ca mhm. donc juste pour dire que ce sont des qui veulent que des réformes soient faites et que réformes yooyu il faut que ñu def ko mhm. maintenant ba ma ko permettre am na am na lenn lu nga xamante ne gisuma ko ci programme yi mhm. et j'espère j'estime que loolu war na nekk au cœur de leur programme tey jii ku mel un Ousmane Sonko n'a pas participé à la présidentielle parce que tout simplement benn peine accessoire moom moo c'est pas une réforme bu nga xamante ne proposé nañ ko tey da ngay xool par exemple le Sénégal on a des peines principales on a des peines complémentaires on a des peines accessoires et la plupart mm. les peines accessoires mooy li nga xam mooy tere nit mu dem bokk élection France rek la nañ ko depuis Mathusalem France tant qu'un juge mm-hmm. n'a pas dit que telle personne condamne nañ et par conséquent il a perdu ses droits civiques xam nga essayé droits familiaux du ko perdre quel que di def mm. mais Sénégal yegguñu foofu il va falloir que ñu réforme ba nga xamante ne mm. que nit ki mën a perd ses droits civiques wala mu nekk mu nekk ses ses droits politiques mu nekk seul un juge moom moo ko mën a def suite à une condamnation ce qui n'est pas le cas au Sénégal parce que tey Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation à simon mois avec sursis mais aucun juge n'a dit qu'il avait perdu ses droits civiques et civils et pourtant boo ñëwee par exemple dans l' application des dispositions du code électoral. Hmm. day verser droit civil parce que c' est une peine accessoire bu nga xam ne par nos textes. mais nag miin baal ma rek naata euh, euh, am na ci programme yi man yi ma lii hmm. da ngay defa ni bon c' est la même personne moo bind programme yi en fait. dafa mel ni copie collé hmm. euh, également di ci bëri ci fonctionnement de la justice est que manqué wul également originalité ak. voilà référence toujours à la France euh, voilà. man li may li may li may li may li may xalaat moo di la diagnostic est correct. c'est ça pour tout le monde. Hmm. ñoom ñëpp ils se sont rendu compte que lii mooy problème yi nga xamante moom mooy justice bi loolu la ñuy loolu la ñuy dund. et que c'est des propositions xamante yàgg nañ ko wax ay juge des libertés. xam nga yooyu yàgg nañ ko fay wax. xam nga parce que référence bi ñuy def France chaque fois parce que ñun suñu bopp suñu base suñu base textuelle yëpp France lañ ko lañ lañ lañ ko calqué. Et France, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait des erreurs ils ont corrigé. Il y a de choses yu nga xam France corrigé nañ ko le juge des bi ñuy wax ne France réglé na ko depuis Mathusalem les peines accessoires yi ñuy wax ne France réglé na ko depuis Mathusalem xam nga le fait que le président de la République nekkatul président du conseil supérieur de la magistrature réglé nañ ko depuis Mathusalem donc juste pour dire que de la France France dem na corriger un certain nombre de choses mais ñun ñun ñu ngi resté fañ nekkoon en ba léegi loolu moo tax la plupart les gens font référence à la France mm-hmm. contrairement à aux États-Unis parce que bokkuñu encore une fois voilà li nga xamante mooy sunu taarixu yoon quoi. Mm-hmm. merci beaucoup jërëjëf El Hadj Daouda si jàngat bi euh, tout de suite euh, ñu jàll ci euh, ponk ponk bu mujj muy suñu gan ñu dalal ko.